sama papa di tax Seydina Mouhamed ñu koy wax Alaaji Alioune Mbaye Dieng sama yaay di ajal bu Maguette Guissé moom tamit di waa Thiès di waa Bambey samay maam yooyu ma jógee ci daara ji nag ci laa dugg ci aar bi ànd seeg samay mag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon Thiès ku ci mel ni xaalis moom moo ma dugal ci aar bi aar yëg moom lañ déggee aar yi mu jàngal ma tëgg man damay tëgg ndax tëgg laa njëkk a def di tëgg daan ànd ak jëwalu xam nañ ndax fa laa sama aar buy sommel jàmm gën mbambara ersan sama paate bi ma dëkk fépp jaxaaw daa kaw ak sara foo dem si Cees xam nañ biram jeeg yàlla def nag aar bi di dox di dox ba ma ñëw li nga moom mooy Dakar sama yaay ma ci sama mag bu neex Ismaïla Mbour Grand Dakar ma nekk foofu doon moom ngi doon jaay ay seetu may jaay moom ak di ko boole sama aar mu teg ma ci yoon bu baax moom sama mag jooju Ismaïla bi ma fa nekkee bi ma fa nekkee di fa nekk ba quelque temps après ma jógaat foofu Grand Dakar daal di delluwaat Thiès continuer sama aar bi ma demaatee Thiès nekkaat ko ci woy yeeg simb yeeg ngénte yeeg affaire yooyu donc sama papa nag moom musul bëgg musique nah, mais ñun ñoo tax mu déglu musique ndax moom tàkkatu Seydina Mouhamed la moom loolu rek la xam moo tax ñun mën nañu mën nañu fépp kan? tey eh, bu la jàppalee Seydina Mouhamed nga kan? yaakaar ne moom lañu mënee ndax dañ avec Goldé boo déggee li mu lu mu woy rek woy na Seydina Mouhamed man aussi def naa ay single ñaar yoon woy ko Seydina Mouhamed mu ngi ci YouTube bi loolu tamit ngeen ko gis ndax ñun ñu ngi ci waaye Seydina Mouhamed moo nekk suñu xol waaye aar moom lu mu doon la ci suñuy bàyyi suñuy maam mënuñu ko te li tax ñu koy def du lenn rek lu dul maanaam bëggal suñuy waajur teral leen ndax bëggunoo ko sàcc. bëgg noo fen bëgg noo wax lu ñaaw bëgg noo def leneen ndax famille bi nu bokk famille bu noble la juddoo ma ci famille boo xam ne nag ay richard fa nekk waaye nag famille bi ma bokk ay nit yu am ngor fa nekk ay nit yu am jom muy famille njegeen sama wàllu kër yaay ñi nga xam ñoo sant gisee ak sama wàllu kër maam ñi nga xam ñoo ñoo sant ak sama maam Fatou Fatou Mbaye mi sekk di sama maam man tamit Seydou gisee di sama maam Momar Dieng di sama maam donc boo juddoo ci famille bu mel noonu nag ah li la war rek moom mooy nga am jom ndax sama papa ñu bari da doon yaakaar ni sax bu fekkee ni wàllewu dina am ci famille bi moom mooy wàllewu bi ndax kenn mosu ko dégg ci dara waaw loolu rek moo taxoon na moo ñu dugg ci aar bi ngir bu dara ngir teral ko te loolu ñu ci duggoon maanaam defuñu lépp sax mook sama yaay mais yàlla def na liñ ci bëggoon rek lu mu tudd tuuti rek ñoom xool nañu fekk suñu njëriñ ndax sama yaay tey nekkatu fi sama papa tey nekkatu fi ñoom ñëpp tey dëdd nañu waaye nag bàyyi nañ ma ngor bàyyi nañ ma jom bàyyi nañ ma kët bàyyi nañ ma lépp lépp loo xam ne ñoom ñoo ko porté woon tey man maa ko gàddu man mi nga xam sama jaatu yaay ci sama wàllu papa am naa rak bu jigéen donc muy famille boo xam tey man maay yaakaar famille bi mën naa ko yaakaar nag dafa foor ndax mais koo yaakaar yàlla la yaakaar dama ko waxee noonu rek mais ñoom dama yaakaar ci man man tamit ñu ànd ñun ñëpp yaakaar ci yàlla te li ma yaakaar moom mooy musique bi may def laa bëgg a def dundal ci samay waajur def naa ko ba jébbal naa la suñu borom.